ci film téemi si naxul waadix si ñaareelu dars bi may ajzaul jumla ajzaul jumla ci xaaj jumla yi dars bu ñaareel nag xaaj jumla yi la la bëgg jàngal jumla yi seen lépp xaaj bi yëpp ñaata la waaye yooyu nag ñett lañ te mooy ismu ak fi'lu ak xarfu téere bi lu muy bëri bëri ñetti baaj yooyu la rek te mooy ismu ak fi'lu ak xarfu danaa koy dañ koy bamtuwaat ba muy bëri rek waaye ñetti baat yooyu kese la is te ismo ak faala ak xarfu ñu xaaj jumla yi ñetti kese lañ ismu nag ismu mooy tur ismu mooy tur bi nga dafay teetale ab jëmm wala ismu insaan boobu mooy tur boo nga xam ne dafay teetale ni dafay ab ki dund mooy comme xaweeg bëyi malay ismu nabaat mooy ismu boo xamante ni dafay tensile gàncax mooy lépp luy sax suuf rek ismu jamaan nag mooy loo ismu bu waay mooy xamante ni mën nga kaa laal te du màgg ko laal du am xel ismu maanaa nag boo xam mooy xamante ni mënoo kaa laal te mënoo kaa gis tamit danga koy comprendre rek comme leer kenn mënta laal ne lii mooy leer kon ismu xaajo yi la fi'lu la mooy loo xamante ni buñ ko waxee di nga xamante ni am di nga si déggee am na ku jëf comme nga ne zaaba dem bu na di si déggee am na ku dem xarfu nag mooy loo xamante ni moom bu duggee ci jumla ci jumlaam dañu si déggee maanaam ba sëkk waaye bu dugal ci jumlaam ni si mën a dégge benn maana kon xaaj jumla ñett yi la isma ak fi'alo ak xarf al am silat li mooy misaal yi misaal la si jox mooy rakiba wax ibrahim ibrahim alxisaana fas bi rakiba fi'al dinga xam nga ne am na ku ibrahim ismu la ismu insaan alxisaana ismu xayawaan mooy malay yudaa bu mu ngi fooye ismailu ismail alqitta muslim yudaa bu fi'lu la ismailu ismailu ismu isaada alqitta ismu xayawaan yaxsudu dana góob alfallaahu baykat bi alqamha basi yaxsudu fi'lu la alfallaahu ismu bu ismu doomu aadama la xam nga doomu aadama rek moom moom mën na nekk baykat moo dañu ne alfallaahu baykat bi ismu insaan la alqamha basi loolu ismu nabal la taakulu dana lekk shaatu gàtt gi fu na ñebe wa ak shaa'iun sañu la shaatu gàtt gi loolu ismu xayawaan la fuu la ñebe loolu ismu nabal la wa xawfu la shaa'iun ismu euh, nabal la samia samiatu dégg na an nasaxata laay bi samia la woon waaye tugi dañ ko see yokk moom mi wax samiatu dégg naa Samiha dégg na Samiha dégg na tu man an-nasihata ndigal Samiha fi'lu la waaye tu xarfu la an-nasihata an-nasihata ismu la mooy ismu maana la yasa'u dana jolli an-nuuru leer gi fi fi l-hujrati ci biir saal bi yasa'u fi'lu la an-nuuru ismu maana la fi xarfu la al-hujrata ismu jamaa la tajri daw as-safiinatu gaal gi ala al-maa'i ci kaw ndox mi تجري فعل السفينة السفينة كلا اسم جمال ala حفل الماء اسم جمال بطين هل ndax tuhib bëgg nga asafawa tukki hal tamit ci xarfi la bokk ndax moom buñ ko waxee doo si déggee dara waaye buñ ko buñ ko waxee moom kenn kese duñ si déggee dara waaye buñ ko dugalee ci jumlaam nag dañ si déggee maanaam mat kon hal xafla tuhibbu fi'lu la asafara loolu ismu maanaa la ndax tukki kenn mën laa wax na la lii mooy kenn mën laa laala na la lii tukki wala mu wax la ko ne kon jox na la si misaal jox na la si misaal ismu insaan ak xayawaan ak nabaat ak jamaat mu jox la si fi'lu ak xaafu ne albaxsu yi gës bi awaf naa xam nañ fi ma mada si lu passé anal jumlatu mufida naka jumla boo am njëriñ te daka kabatal takkaloo mi ajzaan ci ay xaaj e moom alkalimaat mooy baat jàngoon nañ jumlatul mufida ne dafay toggaloo ci xaaju baat xaaju baat yooyu nag la jàngal ci darsu ñaareel bi jàngoon nañ li jumlatu mufida ci darsu njëkk bi xaaj ñaareel bi nag la jàngal xaaj jumlatul mufida te may ismu fi'lu xarf kon ñetti la bëgg nañ an naarifa ñu xam fii haza darsu ci bi la darsu anwaal kalimaat yi xeetu baat yi xam darsu bi na bëgg jàngal mooy nga xam xeetu baat yi te muy isma ak faa axarfu nga ko ba xam bu nekk boo ko gisee nga man wax ne bii mooy ismu nangam wala nga ne fi'lu la nga ne la kon fa naqulu ñu waa isa baxsa buñ gëstoo fi jumali lati ci jumla bi nga xamante ni maanaam mi nga ànd ñun wajadnaa fekk nañ ko anna kalimaat naka anna kalimaat ibrahim naka baatu ibrahim wa ismail ak ismail wal falaahu ak baykat bi alfaadun ay baat lañ yoo xamante ni tusammaa dañ ko tuddee baa ci moom as ashxaasun ci ay jëm mu ne boo jëlee baatu ibrahim ak ismail dafay nekk li nga xamante ni mooy tu jëmm mooy tu insaan tu doomu aadama wa anna kalimaati noo ne kalimatul xisaan naka baatu fas wal qitta ak muus wa shaata ak gàtt alfaadun ay baat lañ yoo xamante ni sama dinañ ko tuddee baa ci moom anwaawun xeet mina xaywaan ci xaywaan boo jëlee fas baatu fas wala nga jël baatu muus wala nga jël baatu gàtt loolu dafa nekk baat yi nga xamante ni dañ koy tuddee xeetu xaywaan mooy ismu xaywaan wa annal qamha naka basi wal fuula ak ñebbe wa ak shaayon saañu alfaazon ay baat yoo xamante ne sama dañ ko tuddee ba ci moom an ay xeet mel ne nabaat ci nabaat mel ne boo jëlee baatu bësi ak ak ñebe ak saaño saaño loolu moom ak saaño ay baat yoo xamante ni dafay nekk xeetu nabaat mooy dafay nekk ci ismu nabaat wa anal xujoota naka saal safina sa gaal wal maaw ak ndox al ay baat na yoo xamante ni samba dañ ko tuddee bi ci moom anwaawun ay xeet mu ne jamaat si jamaat nga baat mi nga xamante ni mooy baatu saal wala nga jël tukki wala baat ndox ay baat na yoo xamante ni dafay teetale ismu waan an nasaxata naka laay bi wan nuura ak leer wa safara ak tukki alfaazun ay baat yoo ñoo xamante ni tusammaa nañ ko tuddee baat ci moom anwaan uxraa minal maani ci maana jële baatu ndigal ak ak tukki ay baat yoo ñoo xamante ni nekk xeetu maana bu la kon jox na la xeeti ismu yëpp xeetu juróomi ismu yi ismu insaan xayawaan nabaat jamaat ismu maana mu ne wali dalika loolu moo tax tusammaa nañ tuddee kullu kalimatin bépp baat min haadihi kalimaati si bile baat isman tur li moo baat yi nii yëpp dañ leen di tuddee tur wa kadaalika loolu moo tax nag kullu jumlatin bépp jumla tusammaa nañ ko tuddee baa ci moom insaanu insaan aw xayawaan wala xayawaan aw nabaatu wala jamaat aw nabaatu wala nabaat aw jamaat wala jamaat mooy lu way aw ay chaine axar wala jeneen dara mais moo tax bépp tur rek dañ koy tudde ismu insaan wala ismu xayawaan wala ismu nabaat wala jamaat wala jeneen dara bépp ismu boo dégg rek xamal si juróomi ismu yi la nekk mënut génn juróomi ismu yi nawdo danañ dellu lil jumalin si jumla bi marata saaniyata yoon ñaareel bi mu ne jumle yi nii nga xamante ni moom na la jàngaloon sama rakk ba Ibrahim ñu doon mu ne dinañ si delluwaat fa na jiddu ñu fekk fa ànd ak kulla kalimati nekk bépp bat mu ne kalimaati ci mu ne kalimaati ci baat rakk ba war na wayu daa mu ngi fayee waasudu mu ngi wala dana fayee waasudu dana góob wala mu ngi góob wa tekkulo daan lekk te dul dee te tele xalaa xusuli ci amoon jëf شيطان خاص جمل bu jego ودل بات وكبا ولو دعاب ولا يحسد ولا تأكل loolu dafay teetale feer boo xamante ne am na ku ko jëf ci jamono yu jego fa la waake ba nga baatu waake ba nag masalan ci misaal yi dul day teetale alaaw commune ci wax fi zamani maadin si jamono bu teew baatu waake ba loolu dafay teetale ab waaw ci jamono bu teew kun kun ko waxee di nga xamante ne lii ne waa kii ne dafa am na ku wax waaye nag si jamono bu teewul wa daabu mi nga faye wala dana faye yadullu day tetera ala husn ala mudahabatin ci fo fi zamane xaado ci jamono bu teew awil aati wala wi ñëw soo jëlee baatu daay moom dafay teetale ab foo ci jamono bu teew wala jamono buy ñëw waxaloo ma jawaa comme noonu wa li zalika loo moo tax sama nañ ko tuddee sama dinañ ko tuddee kullu kalimatin min azanna mi ci yi ne xeej fi'lan mooy fi'l ni moo tax baat yi baat yi nii rek si baat fi'l dañ koy baat yi nii te mën na jox te mooy al mudaabatu yoonoon ak yu daabu ak rakiba yoonoon dafay teetale ci xeetu fi'l yu mel noonu ak yu mel noonu yëpp dafay teetale xeetu fi'l mu ne wa inda inda ta'ammuli jumali buñ seetantalee jumla wi asalaasata asalaasata ak ñetti yu mujj najid dinañ fekk ànd ak kalimaat naka baat fii te mooy waala ci kaw waxal ndax ak ak ndax wa ndax ak xal boo jëlee jumla bu mujj bi boo jëlee boo ñu seetantale ñetti jumla yu mujj yi sa mooy yasaw annuwa ak tajiyi ak hal tuxibu ak safa mu ne danañ fa fekk fii ak ala ak hël di ñu ni ña nga xaf yi nga xamante ni isa nu taxa buñ tuddee bi kulli min ha ci bépp mu ne wax dahu moom dong la muy fam di si déggee lahu ñel ko maana maana kaamilan man mën mu ne fii hël ñi nga xamante ni mi si ñetti jumla yu mujj yi buñ ko tuddee moom kenn kese ñoom kenn kese ñu si déggee benn maana duñ xam loo bëgg a wax te doo ci mën a waxante wa izaa nutqiya buñ tuddee bi kulli minhaa ci bépp bu ne fi jumla ci ci jumlaam zahara feeñ na maanaahu maanaam kaamilan man bu fekkee ne dañ kaa dugal bu nekk ci jumlaam dinañ si déggee maanaa bu mat sëkk te dinañ si mën a waxante wat sama lañ tuddee kullu kalimatin bépp baat min haadihi l kalimaati si baat yi salaasa salaasa xarfin ñetti xarfin wa kadalika loo mu ne wa kadalika loo moo tax kullu kalimatin bépp baat allati nga xamante ne mina zanaawi nekk na ci yila xeet mu ne ñetti xarf yi nii dañ leen ni mu ne li moo tax ñuy tuddee ñett ba bépp baat yi ñetti baat yi te mooy fii ak ala ak al ak nuyu yooyu moo tax ñu leen tuddee xeetu xarfu alqaida li moo tax te xarfu yi ñu koy tuddee ak lépp li nga xamante ni xeetu naag xarfu yi rek moo tax ñu koy moo tax ñu leen koy tuddee xarfu alqaada li mooy tënk bi dina dënk wa mokkal tënk mooy lan mooy ñu jàngal la dars bu gudd ñu tënkal la ko ci benn dëgg bu ndaw alkalimaatu baat salaasatu anwaa ñetti xel la baat ñetti xel la te ismu wa fi'lu wa fi'lu ak fi'lu wa xarfu ak ismu ñaata xaaj ak fi'lu ak xarfu waaye nag ismu dafa am ismu ismu moom ismu bu fekkee ne moom ci wàllum luxa la danañ si déggee ab dañ si dégg dañ déggee tu kese mais du ànd ak benn maana waaye nag bu dee si ñoo naxu la dañ si déggee si dafay nekk fekkee na ci ñooñ naxu la dafay tegtal dafay tegtal luñ tudd waaye nag te du ànd benn jamono waaye nag ismu ñetti xaaj la dafa am ismu zahir ak ismu mubham ak ismu damir ismu zahir mooy ismu bu feeñ mooy ismu bu leer nañu boo xamante ni buñ la ko waxee di nga xam ne am na ku ko tudd comme ñu ne Muhammad buñ la ko waxee di xamante ne am na ku tudd Muhammad mooy ismu zahir am na beneen mooy ismu mubham ismu mubham mooy ismu mu mubham mooy ismo boo xamante ni buñ la ko waxee dina dina teetile jëmm doomu aadama comme ñu ne haza buñ ko waxee nga xamante ni am na góor gi muy waxal buñ ne hazihi nag nga xamante am na ku jigéen ku waxal waaye nag buñ ne hataani xamal am na ñaar ñu jigéen ñoom jàkkaarloo ñu waxal wala mu ne daanee xamal ne am na ñaari góor ñu jàkkaarloo ñu muy wax xaw laay na mbooloo la moo xam mbooloo mu jigéen wala mbooloo mu góor am na tamit ismu damir mooy ismu mu dama ismu boo xamante ni dafay ismu boo xamante ni dafay nekk ma nga xamante ni moom muy wax comme mu ne ana man wala si ki nga xamante moom lay waxal comme mu ne anta yow ku góor ki mu ne anti yow ku jigéen ko wala mu ne antuma ñoom ñaar ñu góor ñi wala mu ne antumaa ñoom ñaar ñu jigéen ñi kon ismu ñetti xaaj yooyu mooy ismu zaahir ismu ismu damir ak ismu kon ismu yooyu mooy ismu zaahir ak ismu dam ak ismu mubham ismu damir nag moom lañ la waxoon ne mooy tettale kuy yow mi wax wala yi mbooloo wala wala comme wala ngay waxal ki nga jàkkaarloo comme nga nekk anta wala ñu fi nekkul sax comme nga ne huwa moom ku góor ku fi nekkul wala nga ne hiya moom ku hiya moom ku jigéen ku fi nekkul huma ñoom ñaar ñu góor ñu fi nekkul huma ñoom ñaar jigéen ñu fi nekkul hum ñoom mbooloo mu góor ñu fi nekkul hunna ñoom mbooloo jigéen ñu fi nekkul kon ismu yii nii la fi'lu nag moom lañ mooy li nga xamante ni moom bu moom moom faalo moom la ne jàngaloon ne mooy buñ ko waxee buñ ko tuddee dinga xam ne am na ko ko jëf comme nga ne zahaba di xam ne am na ko dem waaye nag xarfu ak xarfu xarfu tamit dafa xarfu moom la jàngaloon ne moom fit dugg ci jumla meeg duñ si mën a déggee benn maanaam waaye buñ ko duggee ci jumla bi nga xamante ne moom la dëppoo rek dinañ si déggee maanaam comme nga ne xel tuxibu ndax bëgg nga safa tukki mu ne fa soo bëggee xam al ismu ismu ku lafzin bépp baat yusammaa nañ ko tuddee baa ci moom insaani insaan aw xayawaani wala xayawaan aw nabaatan wala nabaat aw jamaadi wala jamaat aw ay shayin axar wala janeen dara mu ne ismu na boo ko bëggee xam bu ñu waxee ismu rek jàppal ne si yi nii kese la mooy ismu insaan comme nga ne Ibrahim boo waxee Ibrahim jàppal ne ismu insaan la wala bu ñu nee alxuruf xar jàppal ne xayawaan la buñ ne chat buñ ne fulan jàppale ne nabaat la wala wala buñ buñ tuddee ismu jamaat nga xool ci jumli nga xool ci juróom yi nii ban ban la si méngoo nga xam ne ismu boobu la wala ismu jeneen dara bu tu malaaka duggaane si ak tu yàlla wal fi'lu feelu nag ku lafz bépp baat yadul mooy ku lafz mooy bépp baat boo xamante ni yadul day teetale ala xusul amalin ci amal jëf fi zaman xaasa si jamono bu jege feelu nag soo ko bëggee xam mooy li nga xamante ni dafay teetale dafay teetale ab jëf si jamono si si jamono bu jege mën na nekk jamono bu paase wala bu teew wala bu ñëw wal xaaf xaaf nag lafz bépp baat laa yazalu du feeñ maanaahu maanaa kaamilan bu mat illa ma xëy lu may mu ànd leneen xafu bu dee moom kese la duñ si déggee maanaa bu mat waaye bu ànd ak leneen rek jumlaam dañ si déggee maanaa bu mat sëkk mais tamit ay tamit jéemantu iqra jàngal al jumla aati jumla yi di ñëw wa bayn tàngale al asmaa tur yi allati yi nga xamante ne tadullu day teetale ala asxaasin ci ak tur yi nga xamante ne tadullu day ala xayawaan ci xayawaan wala ci ak tur yi nga xamante ni te dul day teetal ala nabaatin ci nabaat wala ci ak tur yi nga xamante ni te dul day teetal ala jamaatin ci jamaat kon tamit noonu jox ni yow yaa si waa ban mooy tur insaan ak ak xayawaan ak nabaat ak jamaat faydun fayd ya ji mi ngi daw fi shaawe ci mbedd jumla boo xoola ban moo si nekk ismu insaan ak ismu yim la jox ni ali ali yalkabu dana waaw alximaaru mbaam mi wala nga ne yalkabu mi ngi waaw alximaaru mbaam mi alkalba xaj bi yanaamu ngi nelaw fil bustaani ci biir tool bi yuhibbu dana bëgg alwaladu xale bi alburtuqaala orange yaxtariqu dana lakk alxataba matini yatasallaqu dana jolle alxilmaanu xale aljabal yatasallaqu dana ñologu ñologu mooy comme mu yéeg ci kaw garab wala yónne alxilmaanu xale aljabala doj bi waaye xale lu mu bëgg moom mooy foofu mooy xale dina yéeg ci doj bi istawasa fàdd na azi bu tilli bi kapshan kuy asaala bu kundu kull moo xeetu lii la till yakulu dana lekk al dajaaju ganaar bi al busaan niyu tool bi kuy liggéey tool bi yajmaa dana dajale al adhawa fulal yasbaxu dana yasbaxu dana fee al awlaadu xale fil baxri ci biir géej gi al xadiidu weñ bi al xadiidu weñ bi ñuul bi yazubu dana lakk fi naar ci si biir safara si yazubu dana ci biir safara si yazubu mooy fii dana see al midaadu daji fi dawaati min ci biir potu taminu saani jëmantu bu ñaareel bi xawa jàngal a jumla aateetu jumla yi ñëw wa mayis tanga leeral al asmaatu wal afaali ak faali wal xuruufa wal xuruufa xarfin yaftaxu dana ibbi Muhammad Muhammad albaab bunt bi lu mu la bëgg wax ci tamit bi mooy nga leeral ban moo si ismu ak ban moo si faalu ak xarfu yi ne nag dafa bëgg nga xàmmee ñetti yooyu moo tax moo tax mu ne si jox exercice yi yaftaxu dana ibbi Muhammad Muhammad wala nga ne mi ngi ibbi wala nga ne yaftaxu mi ngi ibbi ba tey mën na firi lool wala nga ne Muhammad Muhammad albaaba buntu yashari dana jënd attaajiru commerçant bi alqunna coton yazrau dana jol yazrau dana bay alfallahu baykat bi alqasaba nga jëm nga jëm mooy bant saf su ko yeneen te muy te mu xaw a nuyoo getax getax mooy ñu defe sàkkit yi yazaaw dana yaqoo dana jàng maxam yaqoo dana jàng saidun said alkitaaba téere bi yadxulu dana dugg alhawaa ngelaw li fil xujurati ci biir saal bi asamau meññel mi yatasaaqatu mi ngi wat ardi ci kaw suuf si asaw yëkk bi yaxusu mi ngi bay al ardi suuf dana defal al ahziyatu daal yi minal jildi ci der al usfuur picc mi mu xaaru di mi ngi sab ala shajarati ci kaw kaw bi wala nga ne yoo xaaru di mën nga ba tey mi ngi woy ala shajari ci kaw garab bi yasabu dana dem al umaalu liggéey kat yi ilal masan jëm si fa ñuy liggéey kon bu ñaareel bi jeex na ñu dugg si tamit bu ñetteel bi tamit nu saalis tamit bu ñetteel bi uti indil bi xam si jumale si juróomi jumla mabdu'aatin yu commencé bi asma bi asmaa ci tu tadul day teetale ala asxaasin ci ay jëmm indil juróomi jumla yoo xamante ni bépp su ñoom dafay commencé tur ba nga xamante ne day teetale ab jëmm mooy turu doomu aadama et ci indil li xab si jumla ni si juróomi jumla tantahi day jeexee kullu waaxidatin bépp bu ne min ha ci moom bi ismin ci tur yadulu boo yadulu bi ismin ci tur yadulu boo xamante ni dafay teetil ala xaywaanin ci xaywaan ngeen di waat juróomi jumla yoo xamante ni mujjanteel gi dafay nekk ismu xaywaan yi ci indil ba xam si jumalin ci juróomi jumla tabtadiu day dafay tabtadiu dafay commencé kullu waaxid si biir bu ne min ha ci moom bi ismin ci tur yadulu day teetil ala xaywaanin ci xaywaan ngeen di juróomi jumla yoo xamante ni bu nekk dafay commencé ci tuub buy tettale xayawaan yooyu ci indil bi xam si jumani si jumla tan cahi dafa boo xamante ne dafa jeexee ku lu waaxidatin bépp bu ne ci ah, jumla yoona bi eh, ismin ci tur yadullu day tettale ala nabaat ci nabaat li juróomi jumla yoo xamante ne bu nekkee jeexanteen maa bi dafay nekk tuub nabaat tamit tam tam tamit bu ñeenteel yooyu ci indil bi xam si jumla si juróomi jumla euh, bi xam si jumla si juróomi jumla yëpp tëddi boo xamante ne dafay commencé ku lu min ci bépp bu nekk fi'il ci fi'il indil juróomi jumla yoo xamante ne euh, bu nekk dafay commencé fi'il ñu ci indi ba xam si jumla si juróomi jumla tawasut boo xamante ne dafay digg doomu ku lan ku lu min ci bépp bu nekk fi'il fi'il mu ne indil juróomi jumla yoo xamante ne digg jumla ba fi'il moo fay nekk ñu si indil bi xam si jumani si juróomi jumla xamante ne yabtadiu dafay commencé kullu min ha ci bépp bu ne bi xarfin ci xarf indi juróomi jumla yoo xamante ne commencement ba xarfu lay doon yu ci indil bi xam si jumani si juróomi jumla yatawassatu boo xamante ne dafay digg doomu kullu min ha ci bépp bu ne xarfun kullu min ha ci bépp bu ne xarfun xarf indi juróomi jumla yoo xamante ne digg jumla ba xarfu moo fay nekk tamit nu xaamis si jumani bu juróomeel lu ci indil bi xam si jumanin si juróomi jumla kullu waaxidin bépp bu ne mi naaw ci ñoom murakkabatin day toogloo mi ismaani si ñaari tur day si nekk lu xew lu dul moom indil juróomi yoo xamante ni bu nekk dafay toggaloo ci ñaari ismu waaye nag du nekk leneen lu ñaari ismu it indil bi xam si jumanin si juróomi jumla kullu waaxidin bépp bu ne min haa ci jumla boobu noonu murakkab din day toggaloo min ismayn si murakkab din day toggaloo min ismayn ci benn tur wa faalu ak faalu laysa nekkul xëy foofu du moom mu ne indee juróomi jumla yoo xamante ne bu nekk dafay toggaloo benn isma ak benn faalu waaye nag du nekk lu mooy ñaar yooyu tamit isma ak faalu xaaf yu ci indil bi xam si jumla si juróomi jumla kullu waahidatin bépp bu ne min haa si ñun moom moo kabatante toggaloo min ismin ci tur wa fi'lin ak fi'l wa harfin ak harf jumla yoo xamante ni bu nekk dafay nekk ismu ak fi'l ak harf waaye nag fi'l ba mën naa jiitu ismu ba mën naa jiitu harf ba mën naa jiitu tamriinu tam tam tamriinu sadis jéemantu bu juróom benneel bi mu ne al usfuur a jumla yi ñëw yaxtaa a ajaw kul min haa ci bépp bu ne ilaa ismin ci ism fa daa nga teg al isma tu almunasaba ba ay dëpp fi makaani xaali ci barab yu wéti ne nga indi jumla boo xamante ni bi bu nekk dafay aajoo ismu nga teg ismu boo xamante ni na dala dëppoo moom yaf comme al xisfu picc mi masjidun nuñ tëj la fii nangam yàggalu ko yaa ko yeggale nga teg fa nag ismu bu dëppoo moom yaqra'u dana jàng Muhammad Muhammad nangam al-ihsaan fas bi yajubu dana xëcci nangam al-fawaatu janaax ji taxaafu dana ragal minan min jugee ci nangam atabidu dana nen nangam yuti'u dana topp abaahu ba yuti'u dana topp nangam abaahu baayam saddu dana taj nangam fi sayfi ci noor yasbahu dana fee ak sama ko jën bi fii nangam al jumla atet jumla yi ñëw yaxtaaju dina aajo kullu minha ci bépp ne ila fi'lin ci fi'lu ila fi'l jëm si fi'lu fa daa nga teg al fi'lu fi'lu naas boo xamante ne dafay dëppoo fi makaane xaali ci boobu béyti fa li ism nga fa tegoon mais fii fi'lu nga fay teg al hisaana fas mi al hisaana fas mi nangam sha'iran saño asawu yëkk bi nangam al ajalata sawet bi nangam mahmudun mahmud alxusa banqaas attabidu attabibu docteur bi nangam almaridu aji feebar ji almaridu aji feebar ji nangam ashafaa saafara loolu doxali bi nangam bil kowati ci bal bi nangam annajaaru munisi bi baaban buntu alqaadimu mindaan bi nangam annaafisata palanteer palanteer bi aljumla aatiyatu jumla yi ñëw yaxtaaju dana aajo kullu min haa ci bépp bu ne ilaa xarfin jëm si xarfu fa daa nga teg alxarf xarfu munaasaba bàyyi jëppoo fi makaani xaali ci bari beeti fii xarfu nga fiy teg yasbaxu dana fee alxulaamu xale nangam an naxa dex bi kii albaxar mooy waaye nax nag dex lay fii dana dem at nagam élève nangam almadrasata école madrasati école xataatu dagg naa alxabla bum bi nangam ak sikkiini paak bi yaudu dana dellu alxawibu aji alxawibu aji alxawibu aji jege ji bi bala bilaadihi ci dëkkam alxawibu aji jege ji nangam bilaadihi dëkkam nangam baladihi dëkkam yaudu dana dellu alxawibu aji jege ji nangam baladihi dëkkam naa ma nelaw na at si xale bi asar nangam asar lal bi yardaa dana gërëm al muallimu jàngalekat bi nangam ak tilmiid élève bi al muaddabi bu am ñaar bu ñaar tamit bu juróom ñaareel bi ne kam ñu formé jumla xam sa jumla juróomi jumla baxaysu baxaysu baxaysu dans baxaysu takunu boo xamante ne dafay nekk kullu jumlatin bépp jumla bilaati ñoom mu wakkab sin de toggulo min ismaili si ñaari tur mu ne formel juróomi indi juróomi jumla yoo xamante ni dafay nekk bépp jumla yoo dafay si ñaari tur kaman hmm, xam sa juman juróomi jumla bi xay sakkoon boo xamante ni dafay nekk lu jëmante ni bépp jumla bilaati ñoom mu wakkab si ñaari tur wa ak faal juróomi jumla yoo xamante ni dafay dafay nekk jumla boo xamante ni dafay toggaloo si ismu ñaari ismu ak benn fi'al kawin formel xamsa jumaleen juróomi jumla baxay su tashtamil boo xamante ni dafay làmboo kullu jumla si bépp jumla minaa ci si ñetti xeeti li kalimaat ñeel baat yi ñetti xeet mooy ismu ak fi'alu ak xarfu kon ñu leen jotoon ci dasu tay in uridu illa al islaaha ma wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته